salaamaaleykum salaamaaleykum yaay faal yi salaamaaleykum salaamaaleykum yaay faal yi ak baay faal yi partagé leen vidéo yi Ndey Diouf maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la bëggee démb moom tojati nga dëkk bi ci bool bi ok my sister I love you Ndey Faatu ah, di ñaanal waa Sénégal yëpp jàmm ah. ñu dellu siwaat parce que tey il faut ñu waxtaan te waxtaan bi du gudd torop du gudd torop parce que defe naa ne defe naa ne suñu xeex bi ñuy xeex nii xeex la boo xamante ni ku ci dugg ku ne Sénégal moom la ci dugal. man boog man Assane Diouf de bi may dugg ci xeex bi Sénégal moo ma ci dugal da ngeen di partager vidéo yi parce que du ma yàgg vidéo bi day gàtt am fulla am fayda. ñu teg ko ci dëgg parce que dëgg rek mooy dëgg dégg na ah. naa yéen ñi seetaan yépp sama xol ak sama xel fu ngeen mënti nekk ci àdduna ci dëkk boo mënti yeewoo man Assane Diouf nee naa la jàbb loxo di la ñaanal yàlla defal la jàmm musal la la ci jàngoro ji am musal la ci balaa yi am ci àdduna bi my brother Ibou I love you brother I see you uh, di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal waa Sénégal di dellu siwaat di leen ñaaxaat ci xeex bi nga xamante ni ñun moom moo taxoon ñuy xeex xam ñu dellu ci actualité actualité parce que dafa am loo xamante ni delloo sa bopp ginnaaw la te li nga bëgg a arrêté wala li nga bëgg a faj doo ko faj dama gis ne États-Unis yéen ñi nekk États-Unis ku mel ne sama système Maguette xam nga moom mën na poster après bind xamal sénégalais yi tuuti dama koy ñaan yéen ñi nekk États-Unis yéen ñi nekk Europe parce que fii xam nga il faut ñun ci suñu bopp ñun ñii ci suñu biir ñuy ñuy wax ñuy wax ñuy wax bañ di xaar Assane Diouf rek génn wala nga am benn information yónnee ko benn live kat wala affaire yooyu mais il faut ñun ci suñu biir ñuy bind di wax di feeñal Cheikh Gueye nuyu naa la gëj naa la dégg trop maa ngi lay ziyaare di la ziyaare ak waa Italie yëpp di nuyu waa Italie yëpp xam nga di leen bëggee tamit waa France même chose xam nga sama jigéen yeeg sama sœur yeeg sama yaay yéeg sama jarbaat yéeg yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaare di dellu siwaat ci li tax ma bëgg ñu waxtaan sama gars yi xam ngeen ne àdduna bi yëpp muy États-Unis muy itali muy Angleterre muy Espagne muy Chine muy Japon muy Argentine muy Brésil fépp foo xamante nii dëkk yooyu ma leen limal yëpp ay doomu sénégalais ñi ngi fa nekk ay immigré di liggéey di yónnee seen njaboot dégg ah? te dëkk yooyu yëpp tey ku ci nekk xam nga taxaw nga ci njàqare ak tiis boo xamante ni xamuloo lan moo tax xam nga nga taxaw ci loolu parce que comme niñ koy waxee rek lu ñëw ndogalu yàlla la parce que yàlla bindoon na lépp ba pare mais nag fagaru dafa amal njariñ doomu aadama te fii ci Sénégal dama gis dama gis lu garaaw lu ma bëgg a dénoncer léegi xam nga commencé ko ci police commencé ko ci police yéen waa police man la Assane Diouf bu leen fàtte ne yéen yéen lañu dénk kaaraange askan bi yéen rekk lañu dénk kaaraange askan bi ku nekk xam nga ku nekk xam nga ku nekk jàng nga ku nekk gis nga ak sa bët li nga xamante ni moom la polis di dund fii biir Sénégal ñëpp xam nañ ko ñëpp du kenn koo xamante ni xamuloo ko suñu papa yi xam nañ ko suñu maam yi la commencé suñu papa yi suñu yaay yi ba ci ñun suñu doom yi ak suñu sët yi encore parce que xam nga man fi mu toll nii am naa ay xale yoo xamante ni samay sët lañ te boole nañ leen ci ñuy dóor ci mbedd mi dóor yi comme ni ma ko waxee man bañuma ko bañu ko ah parce réew mi ñu nekk mooy réew moo xamante ni même école bi ma nekk pour ma wax ak xale yi il faut ma yor yar te loolu seen papa yeeg seen yaay yi ku mel ne Assane juuf moo leen jàngal loolu parce que boo booy wax duñ la déglu seeni bët lañuy dégloo bët du dégg bët du dégg nopp mooy dégg moo tax koo ci waxal même boo ko yónnee bitig ba sax day dem ba bitig ba dëppaat nela loo ma yónni woon parce que ay bët la doon déggee dégluwul woon ak noppam te dégg naa la ak déglu naa li ngay wax du benn dégg naa la ak déglu naa li ngay wax du benn te sénégalais xoolal boo leen dee wax lu leen intéressé wul lu jëmul ci seen poos dañ la dégg naa la ñun ñëpp xamante nañ dégg naa la la ñuy wax xam nga boo demee di leen sant wala ni nga leen di diis sa soxla bi gën a taxaw xoolal dégg naa la la ñuy wax ñoom ñëpp comprendre nga li la léegi ñun xeet boobu tey jii nii dëkk yooyu ma leen limal yëpp dañoo tëju dañoo tëju te tëjuwuñu guddi kese tëjuwuñu guddi kese guddi bëccëg tàkkusaan tisbaar gee lépp la ñu tëj lépp lañu ñu tëj lépp la ñu tëj salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum man nekkaluma fi parti nekkaluma fi candidat nekkaluma fi kenn ku dul intérêt l'intérêt des sénégalais numéro un numéro un l'intérêt que des sénégalais pas un autre pays pas un politicien pas un candidat pas kenn ku yàlla bind ku dul Sénégal moo waral ma def sacrifice yi ma def léegi nag bu fekkee ne dañu nekk ci réew moo xamante ni lépp par par lool lépp lépp lépp par par loola booy dugg ci ministère yi sama papa mooy diw booy dugg tribunal man la doomu diw jugement yi da ngay xàmme doomu ñi xam avocat yeeg ñi xam xam nga wala ñi am tur ak ñi nga xamante ni ay baadoolo lañ fépp foo dem ci àdduna bi même chose sama gars yi man nekkuma fi pour kenn koo xamante nii xolal amuloo amuloo benn tànku kanam benn tànku kanam te Sénégal ngir yàlla jéem leen a am tànku kanam jéem leen a am tànku kanam parce que li tax ñu lii war a tax ñu am tànku kanam mën a dox jëm ca kanam lenn kese la lenn kese la ñuy dégloonte numéro un di dégloonte ba pare respectante ku nekk respecté sa moroom ku nekk respecté sa moroom dégg ngeen ah? ba pare ku nekk xam li nga moom ak li nga moomul ba pare nag ñu xam ñun li ñu bokk lan la te li ñu bokk mooy Sénégal senegal lañu bokk police man la Assane Diouf guddi yi yëpp damay dox ba presque ay minuit une mën man ak xale yi dëggal suñu bopp yi ñuy surveiller li ñu moom ànd ceeg yéen yàlla na leen yàlla defal jàmm seen liggéey rafet na pour ngeen gën a sécuriser doomu aadama yi mais maa ngi ñaan police commissaire central di ko ñaan ministre de l'intérieur di ko ñaan bépp sénégalais boo xamante ni yëg nga ne sa deret ci sa deret rek xoolal yow sénégalais nga dëgg ak ngor kese mooy daw ci yow sama gars yi bàyyi leen jaxasoo bi bëccëg commencé ko ci transport transport man maa ngi joxe déclaration léegi yéen chauffeuru super yi yiy tegg tali bi di surcharge di surcharge ñun ay sénégalais lañ ñun tamit yeen chauffeuru super yi surcharge yépp laa leen wax di jaar biir Aynumaan 3 di xëtt Lamsaar soit ngeen daggee ko Safbar di daw alkaati yi Canada ak Croisement Sam noo am na beneen alkaati bu nekk ci biir koñ bi à partir de suba supeer bu fi jaar barki sëñ Touba di nga dëppaat jaar ci tali bi parce que li ñuy tere ñépp lañ ko tere ñépp lañ ko tere te jàngoro ji buy buy buy lor wala muy rey xolal ñun ñëpp lay lor parce que benn sénégalais bu ñàkk bakkanam rek xoolal ci jàngoro ji suñu defet la ñun te ñu mën koo xeex benn sénégalais bu ñàkk bakkanam man sama yoon ci ay ay ay maa ngi dégg ñuy wax ay ay faux docteur ay faux fii Sénégal président bi faux la parce que président de la république bu Sénégal dafa sàcc suñu élection foo président la bu falee ministre ministre bi faux la bu taxawalee lu mu taxawal c'est faux ba ci ministre de la santé ñun ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ ko na ma procureur woo suba ma yóbbu ko billaahi ci ay médecin clandestin yu dul jeex biir Sénégal clandestin ñoo xam ne jànguñu docteur jànguñu dara xamuñu lan mooy fu ñu war a pikiir nit wala fu ñu warta pikiir nit xam nga ay book la ñuy yor di ko liir ba pare di consulter ay doomu aadama kon bu ñu leen indilee faux docteur bu bokk ci état ku nekk rek jóg xam nga li ma la ubbi seen làmmiñ yi di wax mbelelel foo docteur mbala lii mbala laa ah Ablaye Diouf Sarr lii Ablaye Diouf Sarr c'est un c'est un faux ministre numéro un Ablaye Diouf Sarr foo ministre la parce que ñun santé la ñu yor santé santé sénégalais yi yoruñu parti de parti politique yoruñu mbooloo santé lañuy laaj te yéen seen ministre ministre de la santé fan la mës a nekkee docteur faux ministre dañuy waroon wax docteur Ablaye Sarr wala docteur ñi ma ci xam Abdou Karim Safia xam nga wala docteur docteur docteur docteur laa wax mais ñu jël nit koo xamante ni dafa am mbooloo biir Dakar am ñu ànd ak moom ñu jël ko jox ko post boo xamante ni moom moo yor suñu sante mu jël ay colossar yoo xamante ni tekkiwuñu dara xam nga ñu toog di seetaan xam nga di def ngeen jéggal ma Jerry Jerry I love you from San Antonio my brother I love you so much. I see you watching. Yeah, I love you, my brother. One love for life, Jerry. One love. One love, my brother. Never give up loving you with your kid, you know, all your family and everybody out there. I give everybody my hand and my power with my prayers, you know, in the name of Allah to bless my, you know, second country, United States of America, my two child you know, uh, Musa, you know, and Mam Anta. You know, I love you guys. I love my lady too, Malika Ubako. Malika, I love you so much. I will never give up loving you. I will never, ever give up loving you, Malika, because you always there for me. With no matter what happened, you always there for me. I love you so much. Léegi yéen Sénégalais boo demee ci dëkk yi am démocratie dëkk yi nga xamante ni dafa am démocratie dëkk yi nga xamante ni xolol du ñu fal nit parce que dafa am mbooloo dañuy seet ku compétent nit ku compétent ñu fal ko mu féete fi mu war a féete gis nga dëkk yooyu eh, du ñu jël benn Ablaye Diouf Sarr rek jox ko suñu santé man duma ko wax mu démissionné man ki ko fa teg laa bëgg mu démissionné dégg ngeen fi may waxee ah ki ko fa teg te xam ne moom amul compétence bay jël ay nit yoo xamante ni tekkiwuñu dara dara nag xam nga ñuy dugg ci ay société ay affaire xam nga di di di di vacciner ay doomu aadama di lor ay sénégalais yee kooku la ñu war a wax mu démissionné kooku lañ war a wax mu démissionné Sally Diop I love you you know I love all my brother out there yéen ñëpp sama xol sama xel mi ngi ci yéen di jóg ci yéen loolu mooy wax ji wax ji du lenn lu dul tey ji suñu ministre de la santé dañu waroon wax yee docteur assan Diouf walla ñu ne docteur Yeah, et, et, et, puis, il y a des docteurs ici au Sénégal. Il y a des docteurs, xam-xam. Voilà. du ay waxu caaxaan du ay waxu politique ba ci mairie mairie Thiaroye Jidda Kaw ah xoolal ki ko yor Cheikh Dieng docteur Cheikh Dieng diplômé diplômé diplômé diplômé diplômé docteur Cheikh Dieng am ay docteur yu mag yu nekk fii biir Sénégal xoolal joxuñu leen ministère de mais dañu jël benn politicien bu mën a sàcc suñu alal mën a fen mën a toroxal askanam xoolal ñu dénk ko suñu santé léegi mu ñuy toroxal moo waral li am-am bu leen jooy parce que xoolal ñun dañ koo yàgg seetaan ñaata ñaata ñaata ëmb yu ñu yàq. mooy xëy di am biir Sénégal yan docteur ñoo koy def benn benn ñaata docteur ñoo nekk ci biir koñ yi ubbi ay clinique clandestin di pikiir nit ñi bis bu ne waa koñ ba xam ne duñu dem ba fekk fa benn këyit bu valable xamali ma la ñenn ñi seen saak lañuy yor def ci lépp di wër di dugg ci kër yi ah di vacciner doomu aadama yi ñaata avant coronavirus di ñëw ak avant Ablaye Diouf Sarr ak tey jii ak suba ñaata te ñun dafa am ku ñu dénk suñu bopp ah muy le président de la république monsieur Macky Sall ok moom monsieur Macky Sall moom moo war a démissionner tey parce que moom la ñu dénk bakkanu sénégalais yi mais Ablaye Diouf Sarr démissionnel Ablaye Diouf Sarr lii ki xamante ni dafa ñàkk compétence ñàkk xarañ amul xam-xam ba képp ku mu fal képp ku Macky Sall mës fal ci pouvoir bi depuis États-Unis maa ngi leen koy wax dooméram yi dooméram yi bi may wax dooméram yi waxuma ko ci ñàkk fayda bi may toog di daggal seen ndey yi waxuma ko ci reewande bi may toog di katt ndey ñoo di di leen toroxal waxuma ko woon ci xolal waxuma ko woon ci reewande dama ko doon wax ci naqar ak jooyal sama réew yaa ngi dégg léegi nañu wax ci loolu nañu wax ci ki war a démissionner mais ay nilaar ay nilaar waxtaan bi tey day wër day wër ba egg terminus ay nilaar yu tekkiwul dara ay clochard yoo xamante ni xolal bu ñu laay fee bu ñu laay fee wala ñu toog jàkkaarloo caméra wala tey nit ñi di leen seetaan nit ñi di leen seetaan ay groupe ay page Facebook yu ay nit yu tekkiwul saram ndeyam parce que ñàkk a tekki saram ndeyam mooy xoolal benn nit bu am turam am turam François Hélène gay mi ngi may dégg François Hélène Gaye mi ngi dégg benn nit bu xeex toog jàkkaarloo caméra bi bi kenn xeexul kenn nanguwul ubbi ndeyam sa làmmiñ kenn mu toog sacrifier liggéeyam sacrifier njabootam samay doom yu ndaw ba ñu refoulé ko jóge jële ko Amérique mu ñëw continuer di sacrifier boppam pour réewam continuer di ko def ba tey créer ay page fu nekk ci àdduna bi page yëpp ñu jël ko Hélène mi may dégg tey la am dëgg page yëpp ñu jël ko tudde ko ay Assane Diouf lii Assane Diouf la le mu topp ma moo frère non bu ko changé parce que yi ma ne ko Hélène Sénégal Sénégal Sénégal Hélène Sénégal ñu xeex xeex ànd ba taxawal Sénégal ay Sénégal rek Sénégal kese Sénégal fu ne ay page ba ay OSR monde yi ay doomeram toog naan dañuy wax ci man di saaga xam nga moo tax ngeen nekk doomeram parce que paase boobu yàlla ak Assane moo tax ngeen toog fa di saaga moo tax ngeen nokk doomeram moo tax ku ci nekk booy toog di ubbi ndeyam sa làmmiñ wala ngay toog naan Assane juuf lu tax mu wax ci Sonko wala lu tax mu wax lee ci Sonko ah di saaga di saaga ah xoolaat leen seen bopp doomeram mooy dugg kër jàmbur xoolal ñu ko fay dundal muy wëlbatiku di saaga boroom kër ga te OSR Assane Diouf moom moom nday OSR seen dëjjaw nday yéen ñëpp yéen ñëpp man ngeen di geeral ah ci sama biir kër seen jaw nday bu tous da ngeen am candidat ah man maa wax maa am droit maa nekk sénégalais nekk cent pour cent teg tekki sama bakkan di révolter di continuer di révolter awma parti awma parti loolu moo leen naqari awma parti te li ngeen jël jox ko valeur yéen ñëpp ngeen defe ne ay star ngeen man defuma ko star moo tax may xëy di toog ndeyam ci bayaal bi di raam ci suuf seeg di di form mbalit di def lépp xoolal nit ñi di ma romb naan gaayen bi dof na léegi te xamuñu ne ñoom ñooy dof yi xoolal li may def seeni doom laa koy defal ak seeni jarbaat ak seen lépp te xoolal bis bu ne bis bu ne ubbi la ndey sa làmmiñ yi yéen waa OSC rek beneen groupe bu mënti doon ak koo mënti doon nag ubbil ndey sa làmmiñ nga wax yow bi ngay commencé ci lan nga commencé ak nan nga def ba commencé ak lu la wax ak lan moo tax nga ubbi sa làmmiñ ak lan moo tax nit ñi commencé laa seetaan seen dëjjaw ndey seen dëjjaw ndey yéen yéen a gën a katt ndeyam bon ndey mag Macky Sall ak képp ku ngeen jël def ko candidat nag seen dëjjaw ndey parce que Macky Sall Macky Sall xoolal melul na yéen melul na yéen sàccul ndey xoolal suñuy xoolal duggul ànd ak ay nit xam nga di sàcc ndey seeni page ah ba pare wëlbatiku xam nga di dal ci kaw ñooñu moom xam na fi mu jóge ok mais yéen xamuleen yéen ay ñan ubbi ndey seen làmmiñ yi ay nit yoo xam ne tekkiwuñu saram ndeyam balaa maa dee ñu naan Assane Diouf lan la defal Sénégal man bu ma defalul senegal saram ndeyam yéen lan ngeen defal senegal yéen <laughs> wax leen su ma defalul senegal dara yéen ñi nga xamante ni sama tur ngeen toppoon Assane Diouf Assane Diouf yee jàppale Assane Diouf xam nga ah, xam nga ah ay jubbanteeg ay ay ku nekk créer tur ku nekk créer tur ku nekk rek créer ndeyam tur ci jëmmu Assane juuf musuma cee xeex musuma cee wax ba taxawal dëggal suñu bopp ne leen ñëw leen ñu dëggal suñu bopp wax ak samay nit wax ak Sali wax ak Reen wax ak ñëpp ne leen waxtaan leen ak yeneen nit yi ñu taxawal loo xamante ni pour senegal kese la te senegal fii lenn dong moo fi manqué mooy ay nit yu dëggu ngeen feeñal seen bopp wane ne yéen ñëpp ay doomeram ngeen ba pare ngeen toog di ma saaga ku nekk di ñappa ndeyam di ubbi sa làmmiñ xamoon ngeen ne xoolal dinaa leen jëlal temps pour ñëw xorom seen job nday yéen ñëpp da ngeen am candidat ah man Assane Diouf man li may xeex bis bu ne maa ngi ciy am ndam sama première action fii Sénégal ma génn ne nañu raxas mbedd mi nañu bale mbedd mi mu set yee président da koo déglu dem créer xoolal toog ak ay nitam signé nday décret sama deuxième action ma jot sama koñ ma ne fii du commercial xoolal cantine du fi ne dara du fi ne xoolal taxaw de ko xoolal ci la ñu commencé lépp lu nekk ci mbedd mi te waroo faa nekk ñu lay déjjati président mi ngi déglu te dew ma assemblée du ma honorable député dégg ngeen ah? te ki ngeen wax ne moom ngeen jël muy Ousmane Sonko ba tax ngeen ni saaga da ngeen bëgg ma saaga ko man du ma ko saaga mais yéen doomu saram ndeyam yooyu toog xoolal di wax naan lu tax muy wax lii man lu ma wax dama ko xam dem leen ngeen wax Ousmane Sonko mu demaat ci micro bi ñu jox ko ko biñ ma ko waxee biñ ma waxee wax ji dama ne loolu amul man maa njëkk a wax ne noo loolu amul barki Serigne Fallou ki ma ko wax mi ngi seetaan wala ay mbokk mi ngi seetaan ma ne non Ousmane Sonko waxul loolu dem toog seetaan ko lépp ba mu jeex mu wax ay waxam ma ñëw wax ñu naa ma yéen ñi nga xamante ngeen déglu xamu leen saram ndeyam lu dul bu ngeen xëyee xoolal jéem a créer benn affaire bu am Sénégal rek bu nit ñëpp di coow rek ku nekk ubbi ndayam sa làmmiñ toog ci Facebook bi di wane màqaama di wane ne da nga am xam-xam te xamuloo saram ndeyam yéen ñëpp yéen ñëpp may toog di di yiwal di sellal xam nga naan xam nga Sénégal laa nekk comme maa ngi teg sama bët naa jéem a maslaat ñoom rek parce que ñoom nekkuñu Sénégal ngeen di continuer di chaque jour nit génn fi ndeyam joxe fi information boo xam ne lépp ay duul la te yéen ñëpp man dama leen di déglu dama leen di seetaan dama leen di déglu chaque jour xamu ba pare même bu ma leen dégluwul am naa ay nit yu leen déglu bu ngeen waxee ba pare ñoom ñooy ñëw man xolal indil ma lépp ngeen ni katta ndeyam di jaay làmmiñ yu rëy dama faale ndeyi seen candidat man Sénégal laay xeexal senegal lay xeexal te xeex bi wutuma ci buzz ah wutuma ci buzz mais yéen doomeraam yi yéen ay wut buzz yéen doomeraam yi yéen nekk ci internet bi ku wax ngeen dugg ci li mu wax jaxase ko mélanger ko indi ay fen pour jaxase ko nit ñi ñun fan la ñu jëm ñu teg fi ngandam xeex pour Karim Meïssa Wade di ko xeex xam nga benn xaaju sénégalais yi ànd ak moom ndax li ñu gis mu defal leen ko ah xeex boobu gañee guñ ko rawuñu ci musuñu cee raw musuñu cee raw bis bu nekk ñu koy néewal doole doomu papa Abdoulaye Wade génne ko Sénégal ñuy xeex loolu naan Karim président di fexe nu mu ñëwee xeexuñu ko ba mu jeex ñu jàpp sama frère ah, Khalifa sàll ma nekk ak moom ci kaso bi xam kan mooy xalifa nekk ak moom laa wax xoolal 15 mois yoo xamante ni amul bis buñ dul gisante xanaa mu dem tribunal guddee fa xanaa bi juge bi commencé di ko woo ci seen fen yooyu xam nga ma la ak seen i seeni affaire loolu rek mooy teye man ak xalifa daaw ñu gisante chaque jour ñuy gisante man Amérique laa jógee ñetti weer laa def ci dëkk bi boobu dem kaso di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom barki Serigne Fallou bis mu ne may waxtaan ak moom ba xam nit kii mooy kan ñu koy xeexal xeex boobu demagul fenn gañewuñu ko ñoom ñëpp ku ci nekk nekk ci ay problème ndax ay fenkat ngeen jóge fële rek indi benn agent impôt et domaine bu liggéeyal impôt et domaine quinze kenn déggu ko benn doomu saram ndeyam ko 2014 créer sa parti ki nga bëgg a xeexal moo lay liggéeyloo mu xool fu mu jaar ba dàq la man su ma la santee liggéey sama biir liggéey ngay daas sa jaasi noo ma gore xoolal balaa nga maa gor xoolal doo fa daase jaasi doo fa daase jaasi C'est ça ce qu'on dit politique politique politique politique bu doon man la noonu laa koy defe ñu dàq la nga génn ak sa parti victimisé wu amuloo fenn foo ko teg fenn foo ko teg fenn amuloon benn histoire ci moom bu ngeen doon am histoire ci moom kon tey tey tey ñu tuddee benn xoolal projet de loi ñu ne projet de loi bii Ousmane Sonko moo ko teg ci taabal ji wala xoolal loi bii ñu voté tey Ousmane Sonko moo ko proposé ba tous vos propositions que que dénoncer dénoncer dénoncer rek dénoncer léegi ñun dinañ fal président ci dénoncer. ñoo faloon papa Abdoulaye Wade pour mu ñëw toog fi di wax Macky moo fi yàqoon lii léegi nii laa ko war a lijjantee diw moo fi yàqo amuñu temps boobu amuñu temps bi mais comme da ngeen a réew amu leen xam-xam du ngeen gëstu lu ne tell rek ngeen ne damm na lu riir rek ku nekk daw tàccu ubbi làmmiñam génne téléphone am taal caméra am di fen rek bis bu nekk ngeen toog wit a fucking a lying people that's how I call you guys fenkat yi fenkat yi fenkat yi may wax ngeen naan yee gaan bi day fen rek wala gaan bi li muy wax tegu ko ci xam-xam xamal li ma wax génnal wax ak nit ñi xam ngeen ne dinaa génn wax ak yéen parce ay doomeram ngeen te page yi ngeen yor yëpp page yi ngeen yor yëpp nga tudd ma xurajaak nga tudd OSR ak nga tudd one million nga tudd kum mënti doon yee ci turu Assane Diouf la taxawee ci turu Assane Diouf la taxawee respecté leen loolu dem leen ngeen créer seen yëfi bopp wala ngeen changé ndey tur yi changé leen ndey tur yi après ngeen wan Sénégalais yi yéen ay gaynde ngeen dem leen ngeen def xoolal comme sama rakk ji may gis ci écran bi ci Camara ba pare yéen ñuy saaga yëpp yéen ñuy saaga ñëpp ak ki tax ngeen di saagaak maa ngi leen di gis ah. ak seeni saagaak fa ngeen dëkk fa ngeen nekk ak xoolal yéen ñëpp jël naa la fa ne yëpp dugal ko seen jaw ndey man maa leen dàq saaga l'insulteur public du ma ko bañ parce que ci dëgg rek moo tax ma nekk insulteur public ci xeexal doomeram bu mel na yow sa ndey sa baay yow mi may saaga moo tax ma nekk insulteur public ci xeexal sama réew moo tax ma nekk insulteur public doomeram doomeram plus doomeram égal doomeram multiplié par doomeram minus doomeram moins doomeram plus dooméram multiplication doomeram toujours dooméram buulee dooméram yéen ubbi ndey seen làmmiñ yi toog ci internet bi ku nekk di wax Assane Diouf Assane Diouf balaa mu doon am njariñ balaa mu doon am njariñ ngeen am xam-xam mais amuleen leen xam-xam amu leen xam-xam gëstuwu fan la xam-xam di jaar xamu leen lan mooy Sénégal xamuleen lan mooy Sénégal man dama xam sama réew dama juddoo fii biir senegal juddoo diggu Ndakaaru duggoo juddoo biir Médina biir Galle Malaw rue 25 angle 18 rue 25 angle 18 bis rue 25 angle 21 cinq asta astafurla rue cinq angle you know, uh, uh, rue 23 angle 18. ngeen di ñàpp ndeyam di toog di am lu ngeen di wax biir gàlle maalaw laa juddoo man Medina dugg fu ne ci ndakaaru dugg fu na ci ndakaaru ay soxo soxo sonolu ma parce que xolal li ma am doy na ma ay xam nga jël ay livre nit liir ko toog di amer de sénégalais yi sonalu ma sonalu ma li ma sonal mooy naka la sénégalais yi def ba am jàmm li ma sonal mooy mooy li ma doon xeex ba ñëw fii Sénégal loolu moo ma sonal mais du ay doomeraam yoo xamante ni tekkiwuñu ndeyam xam nga li ma la wax bëgg a toog bu ñu respecté woon nit ñi walla ñu respecté seen candidat wala ñu bëgg seen candidat nekk président xoolal dañuy respecter nit ku nekk ak opinion respecter nit ku nekk ak li muy wax xam nga li ma wax jéem a xool nan ngay def ba dugal xam nga li xam-xam ak li baax pour sa candidat ci bopp nit ñi bu ko defee nit ñi mën a toog wax ak yow mais amuleen denn lu ngeen dugal ci bopp nit ñi lu dul moo fi dénoncé quatre-vingt-quatorze milliards yooyu moo fi nekk jeune bu génn rek du génn ci mbedd mi. bi ñu jàppee Guy Marius Sagna est-ce que génn na ci mbedd mi ku mënta xeexal Guy Marius Sagna mënoo xeexal Sénégal parce que Guy mari Sagna presque ñiy représenté ci kaaru sénégalais yi la bokk wala moitié sénégalais yi ku mënta xeexal kooku tëju sa kër teg sa làmmiñ boole ci ba maki sàll woote ngay doog a feeñ ñëpp naan waa ji fu mu nekkoon ñu dafa ne boo jàkkaarloo Macky sàll kanam caractère. caractère présidentiel ngay ree ci koo xamante ni yaa taxaw ne kii ñuy jàkkaar lool du opposant yéen sénégalais yi dégg ngeen ko du opposant suñu ennemi la koo xam ne bu la mënee rey rey la koo xam ne bu la mënee tëj kaso tëj la kaso kooku sa ennemi la kooku bugguma jàkkaarloog moom nit bu ma demee ba xam ne sama ennemi nga barki sëñ Fàllu dara du tax ma jàkkaarlook yow surtout nag àdduna bi fii mu toll nii technologie dama naan la audience bi xoolal tegal sa xam nga ah, sa téléphone ñu dugg ci Facebook bi nga wax ma wax sénégalais yëpp dégg walla bu ñu respecté sénégalais yi ñoom ñëpp ñu dajaloo. dem dugg biir assemblée nationale comme ni ko suñu papa Abdoulaye Wade daan defe xoolal wax ak ñoom wax ak ñoom ci respecte sénégalais yi wax ak ñoom ci nan la ñuy def ba dundal sénégalais yi wax ci nan la ñuy def rek ba Sénégal nekk ci jàmm mais déedéet déedéet ku dàqa fen sa moroom rek nga ne kii barki seen Bamba ku dàq fen sa moroom rek nga ne kii gaañ boo xamante ni bi mu duggee ci assemblée beeg léegi depuis 2017 na leen tegal ci taabal ji ban projet de loi la indeegum ngeen ñàpp ndeyam di jaay réewande ban projet de loi la tegagum ci taabal ji ne député yi lii ak ministre bu ñëw rek mu defar këyitu dénonciation ministre bu ñëw rek mu defar këyitu dénonciation ministre bu ñëw rek mu defar këyitu dénonciation non projet non projet non projet non projet jusqu'à aujourd'hui non projet ngeen di ñàppa ndeyam naan da ngeen di jàkkaarloog man man Sénégal laay dund Sénégal rek laay dund dunduma turu kenn papa Abdoulaye Wade sama papa la mais taxul ma dund ko de taxul ma dund parteem doomam am naa ci moom yaakaar taxul ma dund ko parce que du ma xeexal ku ma gisul xalifa Sall am naa ci moom yaakaar parce que dund ak moom xam naa li mu yéenee senegal mais taxul ma nekk xam nga li ma la militant militant wu Sénégal laa man militant bu Sénégal ba pare li ma gën a naqari ñuy toog ku nekk di ubbi ndayam sa làmmiñ naan activiste je suis un activiste je suis ta je te duul rek duul activiste du am candidat activiste activiste du am candidat activiste yootuwul siège nekk président activiste nit kuy xool ñi néew doole kenn mënu leen a waxal kenn ñemewu leen a waxal mu ubbi ci làmmiñam noonu laa defal Sénégal man moo tax yéen doomeraam yi ku ci nekk toog ci page boo xamante ni ay OSR Monde ak OSR lii OSR lële xam nga li ku nekk toog ci benn page rek boo xamante ni sa baay Assane Diouf ku la ngénte Assane Diouf kuy sa baay Assane Diouf foo lekkee laax kër Assane Diouf foo toog di ubbi ndeyam sa làmmiñ ku la jàngal wax Assane Diouf ngeen bëgg a katt ndeyam du ngeen dem changer troupage yi changer leen ko ñépp nag laa wax parce que man ngeen di jàkkaar lool awma candidat awma ndeyam candidat ba keroog may gis li nga xamante ni moom mooy li gën ci sénégalais yi li gën ci sénégalais yi te muy dëgg te muy dëgg ah billaahi wallaahi wa ma rey sama bopp ci lool comme ni ma ko defee ba mag Sall di déglu yow mi àndoon ak Assane Diouf di xeex heure boo toogee te mu doon dëgg ci yow te mu doon dëgg ci yow nag laa wax Sali Diop heure bu toogee day kontaan yaa yi day kontaan te pourtant dafa am yaakaar ci Sonko moom tamit seeni jëkkër dañuy kontaan xam nga lu tax lépp lu ma fi jooy ci ginnaaw rek tax na président de la république bu Sénégal soppi xelam ak xalaatam di déglu lépp loo xamante ni Assane Diouf toog na kaas ko rek wax leen wax leen nekkuma biir assemblée mais président bi mi ngi ciy bàyyi xelam te bu ma leen ko waxee xam ngeen ko bu ma leen ko waxul xam ngeen ko nañ leen yeewu leen yeewu yeewu dafa am njariñ ci doomu aadama yeewu dafa nekk loo xamante ni du looy wax kese looy wax kese dafa ànd ak say tànk oyof nga xam li nekk ci mbedd mi dafa ànd ak say nopp mën a déglu te du lu ñëw nga gëm ko dafa ànd ak ubbi sa bët xamali ma la làmb sa poos dem gëstu ji dem gëstu ji mais toog sa kër rek yor sa caméra yee benn foo docteur ñaata faux docteur ñoo nekk Sénégal ñaata faux docteur te ñi ciy wax noonu ñu bari seen papa wala seen yaay wala seen nijaay foo docteur la ndeyam xam naa li may wax nag xam naa li may wax bu baax ñaata foo docteur ñu dem jëli benn doomeram bu gañee commune ci élection fal ko suñu ministre te lan lañ ko dénk santé santé biñ ko dénk xolal mooy wér-gi-yaram wér-gi-yaram dafa laaj docteur te ki ñu dénk wér-gi-yaram gi moom du docteur xoolal ngeen di ñëw di wax foo foo docteur foo ministre foo président de la république foo docteur kay faux président de la république faux ministre de la santé faux docteur xaritam consultant day leer xeex da nga koy mën xeex dan nga koy mën da ngay xam li ngay xeex lan la man noonu laay xeexee noonu laay xeexe yéen doomeraam yi toog nag bëgg man Assane Diouf ah man Assane Diouf mi nga xamante ni sénégalais la xolal am baay mu dëkk Casamance gee yaa ngi dégg li ma la am baay laa la wax mu dëkk Casamance gee dëkk Sédhiou dëkk ak samay mbokki joolaa ma am ay doomi nijaay yu dégg joolaa di ko lakk xoolal am ay xaritu joolaa ba démb ci guddi xoolal joolaa complet complet militaire mat nañu presque ñoom ñëpp géeju lañ ma wax xam nga jàmmee xam nga ñëpp ay xam naa ne ay joolaa lañ parce que kii na ne ma sor la dëkk affaire yooyu ma taxaw waxtaan ak ñoom ñu wax ma fi seen courage toll ci man ak li ma leen jooyal ak li ma leen waxal man Assane Diouf moomu du man ngeen di jaxaseeg Casaase yi wala ngeen may jéem a jaxaseeg Ousmane Sonko non du am dama ne leen Ousmane Sonko respect honorable député respe xeexkat jeune sénégalais respe bañ respect mais yéen doomeraam yi yéen ñëpp nga xam ne tudduma seen papa tudduma seen yaay ma seen nijaay tudduma seen lenn lu dul benn gaayaan boo xamante nii bis ba ngeen bëgg sax mu nekk président bu ngeen yaru woon mën naa jël sama kart man may leen ko mais yàq ngeen ko yéen ñooñu ñëpp xolal fekk naa leen ndooroon ca xorom sa xorom seen job ndey assan Diouf ngeen di jëflanteel yéen ñëpp laa la wax defar leen seeni vidéo toog leen ci page yi nga xamante ni ku ci toog di wax rek balaa ngaa defaru sax da ngay xalaat nu Assane Diouf di toog ak bu toogee nan lay waxee ak nan nga war a mel ci caméra bi xam nga defar nga benn studio xam nga respecté sénégalais yi jéem nga créer dara xam nga li ma la pour rek mel ne Assane Diouf seen dëjjaw nday faalewu ma leen un seen dëjjaw nday faalewu ma leen deux nday faalewu ma leen trois seen dëjjaw nday faalewu ma leen quatre seen dëjjaw nday faalewu ma leen cinq xorom seen job nday six poobar seen lëfal nday sept fël-fël seen dajew nday yi wit ba pare jël daqaar jàmb ko ci seen caapa nday yi xolal neuf ba pare dix dagg seen sullu baay xolal jox ko seen nday yi ñu soccoo ko ndax bu ngeen leen xoolee yéen ngeen mën a reetaan parce que da ngeen a nekk ci souffrance da ngeen a nekk ci souffrance xamu leen yéenay ñan ay doomeraam yu tekkiwul saram ndeyam saram ndeyam bëgg a toog xamali ma la dugg ci group yi dugg ci page Facebook yi di impose nit ñi benn candidat respecté wuñu sénégalais yi ma génn comme senegale wax sama opinion ngeen war a génn wax seen opinion mais saagawuma leen saagawuma seen candidat mais man maay sénégalais bi taxaw ne du fi nekk président am naa ci droit am naa ci droit du yéen ñëpp a toogoon fii di ubbi ndey seen làmmiñ yi naan Macky du am deuxième mandat dañuy fal diw nangam nangam awma droit boobu man doomeram doomeram doomeram doomeram man du ma yéen parce que ku ci nekk page bi nga toog di wax page bi nga toog di wax bay tudd Assane Diouf xoolal da nga fa daan toog di wax sama papa Assane Diouf libéré Assane Diouf yee di bind ay message yéen ñëpp maa ngi seen message yi vous les message bu nekk recevoir naa ko te duma ma effacé ah yéen ñëpp muy Facebook muy Messenger du ma effacé man parce que musu leen a gis Assane Diouf toog ci live bi live xorom job ndey nit ba pare xëy effacé ko dama koy dama koy xolal wane ne lii maa ko wax dëgg la faalewu ma ndey procureur ba wala juge ba wala président wala keneen dooméram yoo xam ne dañuy wax ba pare dem effacé ko dem leen ngeen jàng xam-xam yëngatu leen comme Titi kamara Titi sàccul page te bis bu nekk mi ngi fay dugal loo xamante ni yéen sénégalais yëpp ak ñi nekk ci page bi yëpp xam nañ ne lu amal njariñ sénégalais yi la te du fa toog di ubbi làmmiñam rek du toog di ubbi làmmiñam rek def leen ne nit ñi nite def leen noonu ay nañu boycotté Assane Diouf seen jaw ndey seen dëjjaw ndey boycotté leen seen dëjjaw ndey yi ok parce que ku saaga rek yéen a ko saagaloo yéen doomeram yi ku saaga rek mbaa nga ne doo ko def sax moo tax ma chaque fois bu may wax bu ma demee ba ci biir dama leen di wax ne du ma bàyyi saaga du ma bàyyi xeex parce que tant que tooñ jeexul doomeram yi ni fi nekk xeex du jeex tant que yi nekk fi xeex du jeex ta man ku ma ci jàkkaar lool yéen ñooñu di wax yëpp dinaa ubbi sa lofal ndey yéen ñëpp nag ana ñuy toogoon fii Dakar ay Assane juuf fi mu nekk naa ko fa fekk dinaa ko def lii dinaa ko def lële ana ñu bis mu nekk ma nekk ci diggu bayaal ah du ngeen fa ñëw doomu saram ndeyam yi ku ci ñëw rek xoolal yee ay xale yu ndaw sax du damay taxaw di la seetaan ay xale yu ndaw yu lekk ba suur xolal li ma wax seen lépp mat xoolal ñu am liggéey di liggéey taxawaaluwuñu defuñu Facebook bi waxukaay ñoo lay jàpp sa ndey ba période loola comme ni police yi def ci mbedd mi vingt heures égal xorom sa job ndey xorom sa job ndey doomeraam yi ngeen doon man dama am courage u xeexal sama réew awma courage wut bës ci benn candidat awma courage xam nga wut bës ci faux docteur awma courage xam nga toog rek nit ñi ne lii am na rek ku nekk génn même jour bi pour ngeen xam ne ay kat ngeen ay doomeram ngeen lu am rek balaa sénégalais ya xam nu mu demee sax ku nekk génn ubbi ndey làmmiñam di wax te li muy wax xamu ci saram ndeyam moo leen di wan ne ay doomeram ngeen dam leen gëstu ni ma leen ko waxee page yi nekk ci Facebook bi yëpp benn page rek lay xëy di ko wër billaahi muy page Titi Camara billaahi parce que xoolal heure bu ma fa duggee benn dinaa xam li xew Sénégal ñaar dinaa am courage yu xam nga xam ne am na ay jeunes sénégalais yu am courage yu toog chaque jour di dénoncer li am Sénégal te nekkuñu di ubbi ndeyam seen làmmiñ yi rek di wax te li ñuy wax teguñu ko fenn teguñu ko fenn xeex bi yëpp ñu ko doon xeex 2017 2018 ba 2019 doomeram ji sàcc suñu élection yéen yéen a ko teg sénégalais yi yéen yéen a ko teg sénégalais ndax lan fen jaxase yàq der seetaan naa sànq sama benn siste Maria Seck muy wax ne sama paas génne naa ci ñu bari paas bi maa ko créé billaahi bi muy wax dafa mel ne man Assane Diouf maa toog di wax parce que li muy wax dama koo xam dama koo dund dama koo dund Maria barki sëñ Touba amal ndam jigéen nga gaynde nga kattal ndey ñëpp ci biti ñëpp ci biti damay am question yooyu nit ñi dañ may woo sa groupe yi dégguñu fa waxtaan xam nga amul débat amul lii débat sénégalais yow da nga maa yëpp débat sénégalais nga may wax débat sénégalais débat yi nga xamante ni xoolal ñi ñuy gis seen kanam yi ci télé bi sax dañuy toog di dóorante ay kurpañe ka xastante ka saagante man wutuma débat yooyu sama fee sama groupe yi wutuma débat yooyu sama page yi te moom rek la sénégalais yuy dund xoolal ñëpp xëy na tekk wala ñëpp na tekk weer ñëpp tekk na tekk at ñu am projet yu dëgër yu ñu mën a proposer sénégalais yi moo ma gënal toog ci page yi di taaxuraan rek barki sëñ Bamba moo tax du ngeen ma fa dégg moo tax ma fa dégg parce que amul dara loo xamante ni débat intellectuel la intellectuel laa wax nag te intellectuel du soxo soxo de du monsieur le président je suis je, euh, euh, sais très bien que ce que vous m'avez proposé du cottu ndeyam loolu débat intellectuel mooy débat yoo xamante ni xoolal day jariñ réew day jariñ réew man yooyu débat laa soxla sama biir group yi eh, soxlawu ma ay xam nga sama xeesal bi may jaay xam nga di wër sali jóob ak yaaxadeeg yeneen janq jeeg ay aliment yooyu pour ñu dolli dolli bi noo man bëgguma débat yooyu sama biir groupe yi sama jigéen ñi xam nañ ko bëgguma ay débat wu jasneer bi bugguma ay débat wu chaîne bi ma diw jaay bëgguma ay débat wu moo Assane Diouf de xam nga ne mooy doxaan diw ah bugguma ay débat xam nga diw mooy doxaan reen bugguma ay débat bugguma nday loolu ma bëgg ay débat yuy jariñ Sénégal ay débat yu mën a dugg ci école yi génn defar classe yi defar table banc yi dimbali xale yi ñu am hygiène ay débat yu mën a génn ci mbedd mi fekk kanamu jumaa yee kanamu jàkka yi yi ñuy saw ak di fa def lu ne ñu defaraat ko ba kenn dootu fa saw teral suñu borom ay débat wu xool espace yi nga xamante ni espace public la public ñu defar ko pour askan bi public bi mën fa toog yëg seen bopp parce que suñu yaay yaa ngi dox di daanu ci naaj bi amuñu ay ker yu ñu toog dëkk bi yëpp tabax nañ ko Sénégal amul quartier résidentiel ak quartier commercial ah lan moo tax yéen doomeraam yi waxu leen seen seen seen seen seen député ah seen honorable député mu dem kaas loolu lan moo tax waxu leen ko mu dem kaas wala mu génn supporter Macky Sall xam nga ci nettoyer bi ñuy nettoyer Sénégal Assane Diouf doon ko xeex mais corona ñëw rek ku nekk na bëret di wut bës tànkal ndey sénégalais yi corona rayagul benn sénégalais fii biir Sénégal kenn nag sida baa ngi biir senegal di rey sénégalais yi malaria bi mu ngi biir senegal di rey sénégalais yi kenn neewul yuuxu mbalit nduur ana ndey suñu milliards yi la joxoon pour malaria bi ah ah nu mu tuddati ah? xaw ma naka la tuddati jalis baa ngi rey sénégalais yi ah tooguñu ñoom ci biir télé yi cotiser sénégalais yi xam nga ñuy fay ay cinquante mille par weer wala ay ay affaire corona bi rayeegu fi kenn ñu génn ñoom ñaar ku nekk ubbi ndayam sa làmmiñ di wax rek wax rek wax rek wax rek non action man dama dund lool dunduma ko dunduma ko barki sëñ Fallou ba ñu nee corona rek laa woo ñi ma mën a waxal wax ak ñoom woo Boubs woo Bougane Gueye Dany wax leen li ma bëgg sama xarit lamin Gueye Ndiaye ñëw indi xam nga ay carton savon sanitizer ma làmb sama poos jënd eau de javel yeewu presque six heures et demi laataa nit ñi di yeewu bi ñu yeewu seen buntu kër yi lañ ma fekk jouru Kazu Rajab màggalu sëñ Fàllu di dimanche pompe kër yëpp avant président Sénégal di génn di wax pompe buntu kër yëpp sanitize eau de javel buntu kër yëpp sama quartier bi médiatiser wu ma ko tooguma di ubbi ndey làmmiñ naan maa def lii maa def lële yooyu ñun toog di ubbi ndey seen làmmiñ kenn xamul fu ñu ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent bi seen adresse sax duñ doo ko xam lu ñu am jënde ko connexion di wut buzz bu ñu paree ci Facebook bi toog ci WhatsApp bi mbelelelelelelel bëgg bëgg affaire sénégalais affaire sénégalais laa koy wax buzz buzz buzz buzz may ma buzz buzz buzz buzz wayal ma sama yaay ji wayal ma sama papa taaxuraanal ma kii yow booy way wayal sama sëriñ bi lépp lépp buzz pour ñu jóg mën a wane seen bopp wane seen bopp am naat goon dee dew ma ci moo tax ñu bari mere ma moo tax ñu bari mere ma yéen ñëpp a ngi nii daje fii junniy doomu aadama ak ñetti téeméer ñoo toog di ma seetaan junniy doomu aadama ak ñetti téeméer yéen junniy doomu aadama ak ñetti téeméer yooyu est-ce que mën naa wax ak yéen ñëpp téléphone kan moo ko mën ci yéen ñi rey seen bopp ndax sonko de ñu bari sonko mosu leen a woo téléphone te ñu ngi may saaga ndey ndax sonko te am na ci ñoo xam ne lu mu bon bon wax naa ñoom téléphone am na lu ma séq ak ñoom te musuma leen a saaga musuma leen a saaga mais ñu am seen candidat mu am sama opinion ñu ne gain bi doomeram la dafa nangam tàndeem kii Macky sàll jënd na ko ñi ne nañ première débat ba yee El Hadj moo doon xam nga fetal bi gën a baax pour pour Macky léegi fetal boobu yàqu na Assane Diouf la jël pour man Sonko c'est mon petit frère sama rakk la barke Mohamed bis bu eggee ci xoolal dimension wu nekk suñu président kenn du ma fa njëkk mais eggagu fa na gën a sàkku xam-xam na gën a sàkku xam-xam Sénégal du pulaaye ginaar Sénégal du ngundu xar Sénégal Sénégal la ak presque vingt millions d'habitants vingt millions vingt doomu aadama vingt millions yee yow moomu ànd ak Sonko yéen ñi toog ñëpp di saaga ndey bu ñu demee ci pañe bi ko fal député kenn voté ci pour Sonko ñi ko voteel kenn déggule mais riir mi rek riirum 2018 2019 ñu topp riir bi rek gëstuwuñu topp benn gaañ boo xamante ni dénoncé dénoncé soxlawuñu président buy dénoncé soxlawuñu ko soxlawuñu loolu ci biir population boobu coono bi ñu am yëpp coono bi ñu am yëpp bi ci gën a garaaw mooy xiif billaay wallaay xiif te ku nekk senegal xoolal ku dul sàcc yi nekk ci gouvernement bi wala xoolal doomeram yi yor milliards yi ah wala ay ñu mel ne ay yuuxu mbalit nduur billahi wallahi ku ci teg sa cin ci ngay añ ci ngay reer te mu desee ci ngay ndékki loolu mooy xiif loolu mooy xiif ñu toog di ko weddi ñu toog di ko weddi ay président di ko weddi ay ministre di ko weddi yéen waxu leen ci Assane Diouf ñëw am opinion wax ci ngeen xam ne seen candidat nekkewu fi lu dul dénoncé dénoncé dénoncé dénoncé defoon na fi lii baaxul li ngeen voté nii baaxul projet de loi doomeram yi projet de loi Ousmane honorable député respect man la Assane Diouf dugalal ñu ay projet de loi ci biir assemblée bi message la pour yow dugalal ñu ay projet de loi ci biir assemblée bi te bàyyi dénoncé bi man sénégalais laa xoolal sama député nga te loolu mooy sama conseil ci yow duma doomeram yi toog ci internet bi di wut buzz di saaga suñu sëriñ yi di wax lu leen neex duma ñoom de duma ñoom de parce réew mi ma juddoo li ko defar xam naa ko réew mi ma juddoo xam naa man maay kan réew mi ma juddoo xam naa lan mooy culture bi mais nag réew mi ma juddoo réew mii ah kenn duma ko jàngal kenn duma ko jàngal moo tax moo frère yee bul nangu ku la ko jàngal bul nangoo topp riir mi xoolal réew mi gënoon na fee bari ci Assane juuf journaux yeeg lépp Assane Diouf juuf Diouf Assane lii nanguwuma ko ñu bari loolu leen naqari ñu bari dañ ne gaan bi oh tekkiwul dara parce que li ñu bëgg bëgguma ko ñu bari dañ ne waaye gaan bi cinq mille views xam nga ñoo ko daan seetaan léegi terewuma tekki dara parce que li ma bëgg defal sama askan maa ngi koy defal sama askan fi mu toll nii li ma bëgg a def pour sama askan maa ngi koy defal sama askan ba guddi yi ñu toll ba ci guddi yi ñu toll may ànd ak sama frère policier yi bu guddi jotee ak sama frère yi waa dëggal suñu bopp ñu ngi ci mbedd mi ah, sensibiliser suñu koñ wax ak jeunes yi sensibiliser xale yu ndaw yi toogloo leen ci biir kër yi même bu buntu kër gi tëjuwul toog leen ci biir waxtaan loolu rek la ñu santaane te affaire yi nag dafa ëpp loxo fi mu toll nii ba man man Assane Diouf maa ñaan président bu Sénégal mu jël ay proposition yu dëgër xoolal nit ñi wàññi ñi deful dara ci mbedd mi xoolal ñi deful dara ci mbedd mi dañ bàyyi mbedd mi guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg guddi ak bëccëg Amérique Amérique Baay Faal Italie Japon Chine Espagne France dëkk yi ngeen yaakaar yëpp seen doom yi dem fa di moodu xoolal ay junniy junniy doomu aadama nga fay dee. léegi ñun duñu préparer suñu bopp. duñu préparer suñu bopp te li koy préparer lenn kese la mooy toogal setal li dëggal suñu bopp di xeex at yi yëpp setalal suñu mbedd yi li dëggal suñu bopp di xeex at yi yëpp defaral suñu école yi moom la dëggal suñu bopp di ne billaahi wallaahi sama jabar sax daf ma ko wax Amérique la nekk no, no, the only thing I'm thinking about all the time, everything we was doing, that's what happening right now. Keep our people clean, and this virus come from being dirty. kon ñun avertiroon nañu askan bi set rek moo des ci àdduna bi set set rek moo fi des bu ñu setul nag moom

billaahi te da ngay gaaw a dee moo tax xolal ay junniy junniy sénégalais dañuy tëdd nelaw rek dee ndax lan am na ku ñu iñaane démb wala am na ku ñu soxore bërki démb am na luy metti seen biir xol yi waxuñu ko xam nga te benn doomu aadama dong xoolal lañuy iñaane dara man xeexaluma Sénégal ci ay junniy viiw yu toog di seetaan xeexaluma Sénégal Titi kamara xam na Titi Camara xam na ñoo ko commencé ndoo te ba tey jii ñoo fi jegewuñu fi te moom xam na ne bis bu nekk dañuy am ndam moo tax doo ñu dégg ñuy mbele mbele rek doo ko dégg moom tam muy mbele mbele rek xoolal da ngay gis vidéo yi di dem rek Medina Dieng namm naa la mon frère you know I love you you know nuyul ma Adja loolu mooy liggéeyal Sénégal mais na par force nit ñi tey di ngeen gëm ne kii jeune la xamali ma la yee moo fi wax lii moo fi def lan la fi defagul assemblée bi bindagul dara pour Ousmane Sonko lu dul dénoncer assemblée nationale bindagul dara ci tour Ousmane Sonko lu dul xëy di dénoncer ministre bu ñëw créé na benn notam pour dénoncer dénoncer wan leen ma leneen fu Ousmane Sonko taxawee ne projet de loi bi moom laa bëgg yéen waa APR wala yéen waa xam nga ah, xam nga ah, groupe parlementaire wala nangam ak nangam jàpp leen ci ñu vote ko wax leen ma ko dénoncé dañ ngeen bëgg ñun Sénégal ñu am président buy dénoncé ah président boo xamante nii waali tey bu wootee woon invité jabaram am nañu jabar ji solo du génn kër gi ah bu leen ñu tooñ bàyyi leen tooñ bi am naa droit wax sama xalaat am nga droit wax sa xalaat ay toog di saaga nit ki di créer ay vidéo xoolal man lu ngeen créer ma partager leen ko parce que ki ngeen di waxal faalewu leen ba pare dundul li ngeen di dund yéen dundul li ngeen di dund parce que buzz ngeen di wër man chaque jour bu lu am importance ñëwee dinaa toog ci caméra bi wax ak sénégalais bu amul importance awma ci soxla mais ay nit yoo xamante ni toog di wax rek toog di wax rek gars yi ñu tàggatoo sali xam nga yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu xam nga ñu tàggatoo sama jabar dugal na benn link benn link pour xam nga lu jëm ci wàllu donation Titi kamara wool Malika xam nga Sali yaa xadi yeneen ñi seetaan yëpp xam nga affaire yi léegi xoolal lu ci nekk rek dañ koy teg fi mu war a tege fi mu war a tege képp koo xamante nii yaa ngi Sénégal nga am xoolal même sa saaku ciment nga bëgguñu ko dimbalee xoolal ñoo ngi école 12 adresse la école 12 Pikine Aynoumane 3 képp ku ci am karo yoo soxlawul karo yoo soxlawul wala fiilu courant yu mën a jariñ wala bant wala ay weñ lu mënti doon lu mën a defar ay table banc ñun waa école 12 soxla nañu ko xam naa ne nag metti na trop parce que daaw ba ren ñi ngi fa te yéen a ngi sonn di def bépp effort bu ngeen mën yéen a ngi sonn di def bépp effort bu ngeen mën mais nag li tax ñu yàgg école douze man Assane Diouf dafa am lu ma naqari senegal mooy li ñuy defaral ba pare duñ ko toppatoo mais man loolu laay xeex ak xale yi ci école bi pour liñ ñu leen defaral ñu mën ko toppatoo ba subaa ñu mën a denc li ñu am defar leneen dégg na képp ku mën a woo Sali wala nga mën a woo sama frère bii nga xam ne moom laa commencé ndool muy Titi kamara xam nga woo ko yéen ñi déggoog moom lépp loo am pour dimbalee ko jeunesse bu Sénégal dimbalee ko école bi nga jox ko ko lépp lu waay am mën ko dimbalee école bi kaa ngi fi lépp lu waay am mën ko dimbalee tamit en école bi xam nga dimbaliwaale waa koñ bi parce que jàngoro ji nii demagul de tant que ñi ngi wax ne am na ay feebar fii rek parce que États-Unis benn cas lañ doon wax tey ñoom ñi ngi ci presque sept cent mille cas yaa ngi dégg États-Unis bu ma juumul defe naa tey ñi ngi ci presque sept cent mille cas xam naa ne am nañu presque trois mille morts trois mille morts États-Unis te États-Unis mooy dëkk bi nga xamante ni Baye Fall dama faa nekkoon de dama faa nekkoon dama ko dund te xoolal man deew ma woon man bokkuma ci ñi demoon New York de wala ñu demoon Detroit man États-Unis laa demoon États-Unis dem ci état yu baree bare baree bari bari yaa ngi dégg dem ci état yu bari te état yooyu ma doon dem bu ci nekk bu ma demee dafa am fu may dem visité gis nga li may wax américains yi ñi ngi ci fi toll nii cent cinquante cinq mille cas ñu am li ma doon wax sax ëpp na ko cent cinquante cinq mille cas nit yoo xamante ni dañoo am feebar bi tey fi mu toll nii ñoo ngi ci deux mille huit cent presque ñetti junni te ñoom ñoo préparé ba préparé àdduna buy tukki ngir yàlla buñ ko def politique ngir yàlla nañu taxaw xeex pour suñu Sénégal ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla ñëpp nag laa ci woo. ñu taxaw pour xeex suñu Sénégal xam ne Sénégal gi ñun ñoo ko moom senegal ñun ñoo ko moom képp ku amati looy joxe képp ku am looy joxe Sali Diop mooy banku dëggal suñu bopp Sali Diop ko Ubaka ak kii nga xamante ni man ak moom jotuma ci waxtaan ak moom mais xam na lépp dëggal suñu bopp Titi kamara wala Ousmane Tounkara ngeen jàppale école bi jàppale Sénégal bàyyi toog di wax loo xamante ni dara dara dara xamuloo ko ci gëstul balaa ngay wax ñu xeexal suñu Sénégal te ñu bàyyi buzz bi buzz bës bës bës bës bës boo nekkee France boo nekkee France bis ak képp koo mënti doon boo amee loo war a defal dëggal suñu bopp jox ko Viviane Sophie boo nekkee France boo amee bépp information bu war a dugg ci secrétariat secrétariat bu dëggal suñu bopp waxtaanal ak Reine Diop loolu mooy dëggal suñu bopp lépp loo am loo war a waxtaane wala information wala looy gëstu wala loo bëgg a xam wala lu mënti doon waxtaanal ak Reine Diop lépp lu jëm ci affaire xaalis xam nga Paris foo mënti nekk ci France wool Viviane Sophie nga jokkoog moom dëggal suñu bopp nag la wax dëggal suñu bopp dëggal suñu bopp moom la ñu wax looy def lu ne te nekkul dëgg ci yow xoolal ñun soxlawuñu ko soxlawuñu ko forcé kenn neexaluñu kenn senegal Sénégal parce que wax bu nekk jaar na fi diw moo lekk xaalis bii diw moo sàcc fii diw moo def lii diw moo def lële am na link bu Malika dugal léegi ci biir am na link bu Malika dugal léegi boo xamante ni dafa connecté wu ak Facebook ñun ñëpp ñoo ngi ci Facebook bi xolal ñun ñi toogoon di seetaan bu ñu defee ku nekk ku nekk un dollar wala ku nekk benn euro benn euro rek day def différence barki sëñ Bamba day def différence bu mag parce que xaalis la pour ñu dimbali jeunesse bu Sénégal liggéey liggéey suñu école yi xam nga mën a soppali yenn affaires yi bu dee corona bi nag moom man corona bi xolal dama xam réew mi ma dëkk dama xam li ma samay maam liggéeyal ba pare dama xam ne sibburu jaar na fi dama xam ne cancer bi mi ngi fi dama xam ne feebar yii nga xamante ni mooy rey nit ñi bis bu ne mi ngi biir senegal te coronavirus rayagul kenn biir senegal kon am na leneen lu ñu war a xeex lu dul corona bokk na ci xeex bi nag mais am na leneen lu ñu war a xeex tamit mooy liy raye li tax yuusu mbalit nduur xam nga yuuxu mbalit nduur sàcc suñuy milliards ci xaalisu malaria bi xam nga li tax xam nga Papa Lëg Diouf dem ba États-Unis di duul naan yee li ma def ci Ebola bi moo tax xam nga maire Philadelphie xam nga décoré ma day duul dem leen gëstu ko dem leen gëstu ko dem leen gëstu ko dem leen ngeen xool vidéo bi ko góor jigéen tànjaan defaloon góor jigéen tànjaan faux journaliste boobu nga xam ne duul rek la fi nekkee gis naa ko temps yi 2S muy duul rek faux journaliste tànjaan góor jigéen tànjaan xeesalkat tànjaan góor guy xeesal di sol ay peew tuba yu góor jigéen yi ba pare di bañ ko la woowe góor jigéen doomeraam yaag papa fokkin doomeraam lëg juuf gudd lëg seen gudd nopp gàttu geen mën a daw doomeraam bi nga doon doomeraam yi gëstuleen gën leen a yeewu ñu continuer xeex bi bu leen dara naqari ci Assane Diouf parce que man li ma doon xeex laay xeex ba léegi amaguma lu bees parce que xeex bi ma doon xeex ndam li laa bëgg a gis bu ma gisee ndam li rek doog a dem ci lu bees mooy xeex pour Sénégal nekk ci jàmm mooy xeex ba Macky sàll mu xam ne mandat bii mooy dernier mandaam ma teg ci sama bakkan mooy xeex ba képp koo xamante ni bokkuloo ci réew mi wala xamuloo lan mooy senegal di sàcc suñu alal ñu fexe ba nangu ko ci yow mais pas xëy toog rek di wax rek di wax rek di wax rek nañu liggéey suñu Sénégal man ci loolu laa nekk da ngeen bàyyi reewande bi reewande bi yéen ñi nga xam ne xamu leen ndeyam ubbi ay page ci turu Assane Diouf sàcc ay page ci turu Assane Diouf ba pare toog di fen rek du ndam du ndam dégg ngeen da di dem ngeen créer crée leen ok loolu mooy jariñ suñu réew moo ñuy avancé loo mooy avancé loo Sénégal mais toog di kàcc rek di kàcc rek ok xam naa ne fi mu toll nii noppalu jot na sama gars yi toog naa lu mu bon bon benn une heure de temps et quelque xam nga pour waxtaan ak yéen trente minutes laa waxoon mais xam nga rek bu wax ji jotee dañuy taxaw wax xam nga di leen ziyaare yaaxat yi sali reen tuumeeg assainisse yi assainisse yi nga xamante ni duñu découragé Codé Diagne Ousmane Sow xam nga li la yee Baye Fall yi yee Baay Faal yi Baay yi rek laay wax nag Baay Faal yi waxuma dof yi Baay Faal yi laay waxal ñi nga xamante ni information da leen di wóor ñi nga xamante ni jëf bu ñuy jëf pour dara xam nga li ma wax day nekk seen biir xol ñi nga xamante ni du toog di wax rek ci ngelaw li ñi nga xamante ni xoolal jiitaluñu Sénégal mais dañoo jël benn nit jiital ko ci kaw Sénégal xam li ma wax ñi nga xamante ni xoolal maanaam. liggéey senegal rek moo leen ñor ñooñu ñépp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal Sénégalu jàmm gu ànd ak ay xéewal gu ànd ak wér-gi-yaram ngeen dalal seen xel yi